di jox euh, sëñ Maam Góor mi nga xamante ne nii moom mooy euh, porte parole euh, fédération travailleurs di bâtiment bu Touba mu jàllale ay kàddoom bu loolu jàllee itam mu jox suñ xaarim Saña mi nga xamante ne nii université si Ahmadou Bamba Bale itam moom macha allah yor na fa ay liggéeyu am solo moom itam dina leeral li nga xamante ne nii moom la fa nekkee kon suñ Maam Góor bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi nuyu fédération travail de bâtiment bi yëpp li ci jiital Sayer mi nga xam ne mooy coordinateur bi nga xam ne moo féete Touba di rafetlu nag active bu rafet bi nga xam ne fédération bi def na ko mu commencé ci sun président Daoud sar ak mboolee membre yi topp ci ginnaaw bi yëpp sëñ Cheikh ak sëñ Balla ñoom ñëpp ñu rafetlu active bu rafet bi nga xam ne def nañ ko muy social bi nga xam ne fexe nañ ba doomu aadama yi kenn ku ne dugal ci saw ñaq muy mboolem koo xam ne da bokk ci fédération travail de bâtiment ba noppi ñu wëlbatiku nag jëkkati cërub Touba jox ñu ko te ko ci loxool sëñ Sayer mi nga xam ne mooy coordinateur bi yàlla dogal ñu waxtaan ci ci bureau bi tënk ci ay kàddu lu ne comme Touba ci kanam moo fi nekk nanu fexe ñu nit li nga xam ne fédération travail de jox nañu ko ñu fexe ko def ay matériels yoo xamante ne si dina jëm ci wàllu set ndax ci jamono ji foofu lañ toll ñu ñëw teg ko ci loxo Touba ca kanam ndax gis na ne ñoom dëkkub Sëñ Touba bi nga xamante ne si maanaam mooy daanaka deuxième capitale du Sénégal lépp loo xamante ne si maanaam luy jëmale dëkk bi ca kanam rek ñoom ci loolu la ñuy dox ñu gis ne wax dëgg si yàlla kenn ku leen gën a jàmbaare ci dëkk bi daal gisuñu ko kon ñun li nu war rek mooy lépp loo xamante ne si am nañ ko rek ñu yët leen ko kon bu nu fédération travail des bâtiments am leen loo xam ne sédd nañu ko mu jëm ci wàllu xaaj ñu xoom ne loolu li ci gën rek mooy ñu jël ko dellook ko ndax ñun liggéeyal Sëñ Tuubaa rek moo ñu war comme ci dëkk bi leen féete nag ñu fas yéene ñëw doon jaayante loolu def suñ loxo ci Tuubaa ca kanam ba noppi it fas yéene lëkkaloog ñoom jox leen loxo ndax mboolem loo xamante ne si ñi ngi koy liggéeyal ci Sëñ ci dëkk bi rek su fekkee ne maanaam loolu wall jëm na ci wàllu ouvrage rek ñu fexe ba loolee seen xel nekk ci ñun loolu it muy doon loo xamante ne si man maa ngi koy rafetlu bu baax a baax te it yaakaar naa ni ñun ñëpp bokk rafetlu ko moo tax ñu bokk ànd ñëw fii tey joxanteeg tubaa ca kanam loxo ndax wax dëgg ci yàlla doon na ñoo xamante ne si jàmbaari Sëriñ lan kon ñu tënk foofu kàddu yi rek ma delloo kàddu gi Sëriñ Xaadim Saña. asalaamaaleykum wa maa ngi leen di nuyu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi surtout waa Touba maa ngi nuyu ñëpp. la Khadim Sagna chef chantier général Touba Matériaux fii ci université Cheikhul Khadim bi waaw ñëwoon tey ànd ak fédération travailleurs du bâtiment ñu am ay wecc lu ñu dajale woon ci seen ñàq pour dimbali jàppante ak Touba ca kanam pour xeex Covid 19 bi bon. Euh, di ci topp ci seen ginnaaw daal ci seen liggéey parce que ku ne xam na ni ñoom li ñuy def euh, ci Touba surtout mun naa ni ci murit sax laay wax ci yoonu murit chaque jour ñu ngi ciy dox ay jéego di ci def ni mu gënee ni mu gën a baaxee ni mu gën a rafete ñun tamit ñu nekk ay ndaw yoo xamante ni dañ leen a jël comme référence jiital leen topp ci seen ginnaaw ci lépp ci lu baax waaw ci ndigalu président Daouda Sarr waaw di ci rafetlu daal ak yaatal bi ñu yaatal ak euh, ubbil ñu seeni buntu ñoo ngi ci seen ginnaaw daal waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah wax ji xam naa du mën a gudd daal parce que li am solo yëpp Saer wax na ko ak euh, ñi ma àndal ñëpp daal wax nañ li am solo yëpp xam dañuy gàttal rek